moo fi dàppale ko. waaw man maa ko doole fuuf. mënul dara la. wallaahi ma def dara. wallaahi ma def dara. bii daa doon ma dóor. moo fi. seen seen wallaahi ma def dara. wallaahi ma def dara. wallaahi ma def dara. bii daa doon wallaahi ma def dara. tàmpet nga. tàmpet nga. bu leen laalante bu leen laalante. tàmpet nga. wallaahi ma def dara. tàmpet nga wala ma def dara sa mënul ñaaw tàmpet nga.

ni nga mel ne wala waa ñu ko sa gëj a bàyyi ñu naan ko laa soxla si kii kii kii laa soxla. ñu soxla xeex bi nga kii lii sax amoo ko. waaw yow kay yow kay yow kay amoo sa gëj a bëri xeex. waaw léegi nag. billaay wallaay mooy yaakaar naa ne daa koy daa koy maa ngi ko bëgg naa ko. waaw xeex waaw xeex waaw. te loolu xeex yow sax moo ci yàlla dogal xeex moom yow bu la jàpp daal ko. waaw léegi nag léegi ba wax nga ñu wax li ko pare. waaw waaw waaw waaw waaw waaw ñëwoon na ci li nga xam ne sama gars yi ñu mën leen a gis. combat bi fan la toll ci yow ndax ak adversaire boo xam ne nee na fa nga dëkk yéen ñëpp instance bi kenn mënu ko téye daal bés boobu bu dee ñëw nan ngay jógee. non saa yoo ko déggee balaa ñëw la foofu jóg entraînement parce que kii tey man parce que laa loo ko dund. nekk jàmbaar parce que maam Serap Fall ñëpp nangu na ko du kii moo tax ñu yokk ma kon bu wax day wax waa parcelle surtout parcelle parcelle bu njëkk a wax man bu yàggee bu yàggee waa parcelle amaana maanaam bu demee sax moo tax xam nga may sa parcelle yooyu noonu nekk ci sa àdduna pour nga mën a combat bis boo rayantee ba promoteur dëgg la làmb war ngaa respecté norme yi nga xam ne mooy tax ëllëg promoteur bi mën a jëriñ pour ëllëg mën laa dëgg surtout kenn xam nga li ñu yàq làmb bokk ci ba gën a jege jege gën a yàlla ci làmb waaye surtout promoteur bi dëkk ni sa borom xale la da ngay indi maanaam bu am lépp ci làmb dëgg la Porto Mor Kankan yow yaa ngi nekk ci wetu Guédiawaye ñoom dëgg nañu ci Mor Kankan bi ba Dakar ñëw si nekk yow ñu nekk Guédiawaye woon daaw na yow. dafa yaakaar naa ne promoteur bi tëdd bii day bay premier jour combat kuy def entrée ci làmb dañ ko war a jàppale dañ ko war a taxaw ndax ëllëg mu mën a ñemee mu mën a ñëw moo jaraw làmb daa sa fi làmb te bëri ci boppam ñoo war a mën a jàppale promoteur yi promoteur amul signature contrat bi nga xam dinañu gis ne daal pour ëllëg ñu dégg ñaari mbir wax avant ñu mën a jóg pour ñu war leen ci peut être mën a cee génn. bu fekkee ne bëri na ñoom ñu ñëw ci signature yi pour nan la ci promoteur bi mën a génn ngir génnee loolu nag message la boo xam ne képp koo xam ne ci làmb nga nekk ngay mën di takk jàmm buñ la joxee avance nga xamoo xaalis fan la jógee bu contrat bi amee ñu yàq signature bi da nga bàyyi dañuy def lépp booy promoteur bi jox doon xaalis doo tukki jox xaalis def seen seen sëriñ. ba promoteur jox ko xaalis am contrat bay bi bëri. kon li bi moom ci làmb ji ni ko moo delloo. muy signé bi la jox nga ñëw ko heure ba jeexee seen ñibbi dina tax boo déggee promoteur bu tëggee boo déggee dina mën a ñëwaat dëkkaat mu gën a bàyyi xel. bañ ngeen ko xasal li ngeen loolu li ngeen moom la bu la ci tegu parce que loolu yow te CNG tamit yéen yéen suñu njiit ci làmb CNG yéen seen responsabilité si ñaar yi nga xam mooy am ci làmb ndax promoteur bu ñu ñu xaalisam mbër bi léegi daa wax ci loolu nga xam ne moo tax boo léegi pour ngeen mooy doo leen am si làmb yaakaar naa ne moo tax muy jàkkaarloo wala ñu suñu fii loolu am na tukki la moo tax ñu jàkkaarloo wala ñu suñu Sénégal yi koy xam waaye nag Lamine dafa am spécial bu fi nekk. mu diggante am ko daal. waaw. ak ak Aliou Birame. wóole wóole. Ah, voilà kon loolu dafa ñu amoon ñu doon sànni di leen gërëm di leen sant te di profité di nuyu sama papa père ba maa ngi nuyu ko sant di ko gërëm maa ngi nuyu Mansour Ba nuyu ko waa Sow di félicité Mansour si journée bu démb di félicité Jamie Kemp si sama sama frère vraiment damay gën a ngi toog de vraiment que journée bi pare moom jàmbaar léegi nag bu ko jëlee mois bi moom vraiment ma si mën nañ laa dëgg yàlla kon nañ gën a màndi rek sponsor dañu jàppale ñoom moo ko ay ñoom moo kankan yi ñuy xeex ñi tey biñ lay suba ñu ngi leen wëri comprendre moo kankan Youssou Ndour combat boobu événement dàq dafa laa ngeen ci xam dara insha allah yàlla moo ñu tax ak fekk ñëpp am jàmm ñu fekk parce que moon bu ñu koy wan man moo xam ne kenn xamul Youssou Ndour ñu koy wan man moo xam ne kenn xamul parce que spécial ñun ñëpp combat il faut que sponsor bi si jàpp yéen ñaa ngeen da ngeen jëflante ci xeex wala ci bëri moo ci ngeen wax moom. waaye Youssou moom dégg naa ay kàddu waaye nag dafa jàpp ne xam naa lu mu jàpp dafa jàpp ne moom moo doon doole moo daa ko bëri waaye nag yàlla suñu borom baax na man def naa onze combats onze victoires def naa neuf combats victoires nëb bu tuwaat yëpp bëri loolu parce que Serigne Fall kon du caaxaan. bokk na 11. billahi wallahi bokk na 11 la. adversaire yoo fa am. wallahi Youssou ëpp leen mënu leen ëpp leen doole. waaye nag dama dama jàpp ne Youssou moom xalaatam lay wax rek. waaye heure bu doomalee ba dugg si jiw dina ma jox ci bi moom parce que seebu xam ne. am nañu la xeex ba amul benn sens bu xeex amul benn problème nañu bàyyi ba dugg si jiw bi bu defee seen soleil bi di ko ñaanal jàmm fa mu nekk. xam naa daa am ay nit rek moo tax ñëwul loolu si biir lañ ko doon dus waaw ñun nee naa la ñun ñëpp ñoo bokk ndey baay ndax bu jeexee rek jeex na ñun làmb la war ñu ko yàq ñu war ñu yàq làmb tamit moo loolu ndax dañ dundal daal man làmb su ma déggee rek moo doon sama hmm? di nga may dara xanaa bala nga di man non nañu bàyyi ba dem seet non nañu bàyyi ba nañu bàyyi ba màgg. waaw ma nekk le vingt deux. le vingt deux waaw. maa ngi si woo caméra bi caméra man yëpp maa ngi si woo si dëkk bi yëpp maa ngi si woo. waaw di di woo waa Bawol. mais mobilisation bi fan la gars yi ko. waaw moom laay wax nii di woo waa Bawol ndax waa Bawol fii nii combat bi dana la ñor combat bu yàqante la woon ndax dafa yàqaloo maanaam lu bari nga koy jooytu ma dootu ma wax di ko jooytu ndax man xale bu ndaw laa aw ma jàppale waaw moo tax bu yàqoo rek day ñëw si ma côté waaye nag sant naa yàlla bu baax. ginnaaw ba nga xamante ni démarche bi kilifa ñu ne ma yow moom suñu doom la. am na weer woo xam loolu boole mooy kii nga yaakaar loolu am na ko waxal ci moom. sama ñaar waay ñëpp ci les services daaw les services daaw les daaw la tamé di les états ay tànk di am na la daaw amé betax di sant sa waaj bi yëpp waaw ana sant dina ngeen ko sant ñu ma la ko mel ni wa do ci ma di yéen wa leen sant waaw ñoom Serigne Diop Fall waaw di leen sant yéen sant promoteur bi la sant bu baax waaw sant bu la ñuy dégg. ñoom waaye ko leeral ak dama bokk Serigne. non daa yàgg. non dama bokk Serigne Mamoun. ah fële ca Tiwaaw. waaw lu ñu wax Mamoun quoi. ah loolu dafa waaw. nuyuwaat waaw ñëw. waaw sant yàlla bu wér-wér. waaw léegi ah kii ngay bëri na non xam nga ko laa lay jëndal. xam naa ko waay. am na bu baax a baax. yow yaa ngi ci jàpp man loolu xam nga doo bëree. doo bëree aussi. waaw boo bëri mos ngeen. si grand combat la ñu. jërëjëf ma boole fii. dañ laa daal. waaw bu loolu war naa amee grand combat. waaw kooku daa sax xor. sant yàlla rek. sant yàlla. xor waaye dañu naan lan yàlla dégg. waaye ba sa adversaire mu nuyoo comme ni ma ko soxla ba tey. waaw dëgg laa maa ngi lay ziar. dëgg laa faal. mais ala maa ngi lay mu ngi fi. mu ngi fi Bamba. waaw loolu day bu laaj la. waaw ginnaaw bi sant yàlla di sant yàlla di sant yàlla waaw di nuyu waa Mbow di nuyu waa Dakar plateau waaw di nuyu waa Seydou Anta Mbacké waaw borom sañ-sañ maa ngi koy nuyu bu baax programme sama baax di nuyu Sëñ Fallou Mbacké borom soir maa ngi nuyu bu baax a baax di leen wax ne combat sama combat seen combat di wulaay kii Babacar. waaw combat bi wax ji dama jël ay ji dama koy def di yéen man foofu dama ko war a fi ma toll mooy ñu soufflé combat bi ma ko daan ko du ma ñuy tax doomu jàmm dama dama koy massacrer. dégg waaye bi tax rek ko de. ah loolu moom du ko doon bari wax tan tan lay def ñun ñëpp ñëpp kii lu lay def kii ma xam jafe dama koy duma taal ko duma ko. kii man duma ko parce que borom duma di doyal di ñaanal bool bool yi am ko bàyyi si lam bi. waaw dara defal leen kam. di di waaw di di sant sama grand bu baax a baax mais lan moo tax nga ne kii daa bëri wax. jooyu ma dara depuis ba ko baax yàqoo ko ba léegi. taxaane lu mën koo laaj mu jox macha allah koy sant bu baax a baax a baax loolu borom Touba di sant Ablaye Ndiaye moom Ndiaye ah, maa ngi sant bu baax a baax damaa si loolu du ko baax sax loolu du ko baax maa ngi sant ñëpp di sant waa rajo bu baax a baax a baax a baax moom yow waaw nga man des naa damay sant man kooku maa kii def ay nekk naa ay dara dama lay def ñenn yooyu sama bopp moom la saa yi li ma sax moom mooy dimanche ma jàpp la duma la daan la beneen boy la. loolu loolu laa sax moom instant yii barke borom Touba di sant Baba Ngar bu Mor Lama. waaw bu Mor Lama maa ngi koy sant bu baax a baax boobu borom teraanga la. dama siy gërëm di ma jox laaj bu baax a baax maa ngi koy sant di ko gërëm Baba Ngar. di sant Mor Pendir ah ndax tey wax naa jot na anaconda yàgg alal bi waaw dëgg alal bi alal bi lan ngay wax ci bés bii nga xam ni moom la amatul lamb yëpp di xaar sa diggante anaconda. waaw gannaaw baax na ñu daal bés yi laa ñu war yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba te yàlla ngay ñu ko ko ñu ko ci baax de ko sa baax ci baax na ko sa xam na la lay tabax ba jërëjëf Serigne Touba gannaaw bañ sant yàlla bi ñu ñu ñu ñaari waay di wax sama yàlla yàlla ñu ko baax di ziare sama sëriñ sama wasila sëriñ Bassirou Fall Alfar ñu sëriñ Mbacke Fall mu am seen wala di wax yàlla ñu ko tax ci yàlla di ziare sama xalifa bu mu bàyyi di sëriñ Mbacke Fall sëriñ Mbacke Fall Alfar ak njabootu sëriñ Mbacke Fall yëpp di ziare sama xalifa sëriñ Mbacke Fall sëriñ Cheikh Diop di ziare sëriñ Mokhtar Mbacke Doré ni sama kilifa di ko ziare baax ziare sëriñ Ousmane Mbacke bu ñu fa ñëw di ziare Bam Cheikh Fall ñu Cheikh Abdoulaye Fall Ndar borom Touba yëppul am na borom Cheikh Ndiaye di ziare baax di ziare sëriñ Moustapha Fall di ziare sëriñ Mamour Mbacke di ziare sama yaay bopp bi sama maam te Serigne Touba maa ngi koy ziar bu baax di ci wax sama yaay maa ngi koy incha allah. loolu am na solo. alors kon nag loolu ñuy dugg ci waxtaan bi. alhamdulilah bisimilah. jërëjëf. di nga wax yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba ma Aliou Sow. xanaa ba sant yàlla jëm si yeneen yi ñu ngi sant suñu ñaari waay di nuyu askan bi toog yëpp di nuyu suñu père di nuyu promoteur di nuyu gars di nuyu sama adversaire di nuyu journaliste ñëpp parce que boo ko jéemoon ci moom loolu ak keneen. waaw ñëw naa fi yow. ñëw naa fi yow. yooyu boo li nga yaakaar ak li am ak li ñuy def sa bopp nga xamal ko gën a boole di tax ñi ngay àndal. ndax ñi ngay àndal bu ñu defee si boo taxawee ñoom si boo defee yow yaa ñeme alliance te bu jàkkaarloo ak yow yow xam nga ne yow sa diggante yàlla boo yow yaa may bàyyi xel bu baax yow xam nga ne yow moom mën na maa seen baax lépp li ma la wax daal ak lu ko dee def maa la ko daal. si côté bi mu ne lépp loo xam ne boo koy def maa la ko daal. ñëw ma ci ak loolu. yow léeg-léeg mu daal mooy taasu te incha allah dafa ñu naan ko taaraal borom taw boppam borom taw bi. waaw dama gis sa waay ma gis sa waay lépp lu wut mën ci làmb mën ko mën ko dàq ko wala. waaw mais dama kii di ñaan bu avancé te yow dañu koy noole ba war yow dana si war a bind. waaw incha allah parce que dama pare yow yow bëgg nga mën. parce que yow moom fee sa wax. wax dëgg yow maa ngi kan mooy wax. yow booy sa tur yaay def interview yow yaay wax ak say mbokk. yéen a moomee TikTok bi yéen sa tur yaay def yow yaay wax man fa laa waxee. parce que moom ma jël bu ma fi journaliste yaa ngi nii bu ñëw ne ma maa ngi interview alliance bi man boobu laa koy fekkee ba léegi sama bopp laa koy def def ko di dara loolu la fi nekk nekk ci tool bi yow ngay ñëw di bàyyi faal def si ay mbooy naan ay xaw ma jàpp affaire bu booyee ak yooyu noonu yow ngay bàyyi faal loolu bàyyi faal waaye yow dañuy dund nii wala waaw lan muy dund nii wala du saa ay mbooy bi la ñu wax dañ naa bëgg wax ngay dund di ngay ànd ak yow Wala li nga wax da ko wax. Maanaam li nga maanaam làmb bi ñu dund zaar waaye baaxal la baaxal la làmb yi ñu dund zaar ay baaxal la baaxal loolu dañ ko baaxee wax sëriñ loolu suñu wax bi ñun yaa ngi dégg loolu su ma nit ñoo ñëw rek mën naa ñoo dëkk day bàyyi itam ba ñëw làmb dafa ñëw làmb kon bu xewlee woo ma dafa war a mën a defar taam loo xam ne yaa ko moom sa bopp am na loo xam ne ko moom si yow duñ moom si man nag man nag booy woo ma yow ànd ak yow parce que fii duñ ma Baye Fall wax. non non la Baye Fall laa wax. non non ñu naan dund ko na ko foofu laa wax. waaw man yaa sama solo Baye Fall lay dégg. waaw yàlla yàlla def loolu sama dund. waaw yàlla yàlla def loolu. boo tuddee si yéen ñi béy fépp. mooy yow ak borom drapeau beeg yéen waa passé yéen ñëpp mën a nasaloo yooyu woykat yi ñëpp mën naa leen benn par benn. te ni ngeen di duub yéen xaw ma ko man li ma daa dégg xaw ma ko wax naa.